musique gi nee na fréquenté na Viviane fréquenté Aliou Mbaye Nder nay duyo ak ki nga xam ne mooy Sidi Mbaye Pape Birahima Aïda Samb daat nay wax ne liggéey na ak Abou Cubalo ci famille Dogo la bokk yéen kaay gi nee moom Pagaye Mbaye nee na nag mooy magi Jibi Mbaye mi nga xam ne mooy guitariste bu Youssou Ndour bi wax na jafe-jafe yi nga xamante ni am na ko ci coronavirus bi moom Pagaye Mbaye wax na ci singalam bii nga xam ne na ma la ko tudde ak nay na ñaari singal yooyu neexul ba neexul waaye na bës moom Pagaye Mbaye ci réew mi quotidien ay fecc yoo xam ne lée waaye gars yi dañu ko sàcce fekk mu ci mel ni takk ci ripp moom pakaay nee takk ci ripp moo ko créé waaye gars yi dañu koo sàcce te gars yi wuruñu woon ko sàcc nag yéen kaay gi de la Soleil xëy dañu xibaar naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall démb ci guddi ma nga woon ca Touba yéen kaay gi di Vox Populi ak L'As mu ñu xamal laan ñu visite surprise et nocturne yéen kaay gi di l'info ñu xëy fekk fa Mbagnick Ndiaye nee na Macky Sall est mal ñi nga xam ne ñoo ko wër du ko wax dëgg yéen kaay gi di Vox Populi xëy dañu xibaar naan bi tere jàppale nañu Ousmane Sonko a dem ca Togo ca Lomé ma ki nga xam ne jamono ji moo yor dossier Ousmane Sonko wuutu fi nag doyen des juges en attendant les événements di Abdoulaye Assane Thiouna nee na nag jamono ji woyofal li nga xam ne mooy contrôle judiciaire bi ak fi nga xam ne maanaam moom la procédure yi toll du mën a yomb yéen kaay gi di direct news xëy mel ni lu jaaxle ci doxinu Macky ak jëfinu Macky nee na Macky njiitu réew mi moo fi taxaw ne dafay fexe xale yi am liggéey waaye nag li nga xam ne moom la ñu mooy paa ñi nga xam ne ñooy war a dem retraite ak troisième as yi ñooñu la Macky Sall di defal promotion yéen a kaay gi de Le Quotidien nee na gouvernement bu Sénégal ni ki démb nañu ak tas ko do xabaar yi nee ñu nag su passé soixante-cinq mille recrutement yi nga xam ne état bu Sénégal ma ngi koy def am na yeneen ñaari junni emploi yoo xam ne Macky Sall diggaan na ko ndaw ñi lu jëm ci wàllum redécoupage administratif bi Omar Gueye nee na nag andi ay jubbanti ci loo xam ne 2011 ñenn ci ay way politique ñoo ngi woon ca place de l'Obélisque bëri fa lool doon manifester naqaru li nga xam ne moom la Israël di teg ñi nga xam ne ñooy waa Palestine yéen kaay gi di source a xëy duñu xibaar lu doy waar a doy waar ci diiwaanu Mbàkke nee na dafa am benn directeur école boo xam ne jamono ji dañu ko teg loxo la nga xam ne moom la ñu koy tuumaa la tuumal maanaam yàkkataana violé ab xale bu jigéen boo xam ne ab mineur la yéen kaay gi ne na Mohamed Thiam moom nag ñoo ngi koy tuumal ak ñeewteef ca diiwaanu HLM Grand Louga nee na ñu benn xale bu jigéen la violé ba pare daal di koy rey yéen tournée bu mujj bi ca diwaanu Europe ak nag suspense yi nga xam ne moo ci am ak enjeu yi nga xam ne maanaam nag bëccëg bu mujj bi daan na koy am ci championnat yu bëri ci dindu Afrique moo xam Angleterre la moo xam fi nga xam ne mooy diwaanu France la moo xam Espagne la yéen a kaay gi nee na Lille jamono ji match bii nga xam ne moo ko desee bu si amee victoire dina jël championnat bu France waaye nag bu lajjee Paris Saint-Germain gagné Paris saint mooy jël championnat ba yéen nee na Atlético Madrid tey jii bu gagné match bu mujj bi moo jël championnat ba waaye nag bu ñu ko gagné Real Madrid gagné Real Madrid jël championnat championnat ba waaye Real Madrid nag Villarreal lay dajale te Villarreal moomee dafa bëgg a ngir mën a dem Europa League yéen kaay gi nee na Liverpool ak Chelsea ak Leicester ñetti équipe yi yan ñaari équipe ñoo si fekk si Manchester City ak Manchester United ngir mën a qualifié ci Ligue des champions yi nga xam ne moom la ñu dëgmal te force ñetti équipe yi maanaam kenn dina ci des kan moo ci des tey jii bu ñetti waxtu jotee maanaam lépp dina leer Liverpool wala jàkkaarloo ak Crystal Palace Leicester wala laale ak